yes wala boog j'espère que vous allez bien Manglen di di bu show dab mais aussi di jox comme d'habitude vous êtes en compagnie de votre grande chroniqueuse borom matricule 221 xaritu et dalati leen ak ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 mais bien sûr la chaîne des news des plus belles chroniques mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game donc bu pouvez vous abonné en même temps activez activer cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui suivent alors sama gars un je pour une réaction concernant la vidéo intitulée intro de Blim Pro mais avant tout bu leen utiliser code promo sur 1 kenza 221 ou kenza sur melbet kz 221 et sur sunubet kenza 221 Allez, let's go c'est maintenant sama gars la réaction intro de Blim Pro avant tout, la vidéo a pour titre Intro. Intro fait partie de son projet EP intitulé Première Pierre. donc Première Pierre projet le boo ni EP le comporte le sept titres Je am ci featuring ak ki nga xamante ni modi Authentic MC Kali ak ki nga Youssef mu nekk projet boo xamante ne y a des prods de ouf un projet tellement nice les loo leen soxla moo ngi ci mais pourquoi première pierre c'est juste pour nous faire savoir que c'est le premier projet bu depuis qu'il a débuté sa carrière artistique. par contre qui concerne vidéo tey bi mooy réaction bi ñuy def ci vidéo bi intro. Intro sound la boo maintenant, ne ni nous a par nous nous a parlé de sa vie artistique bien sûr mais en même temps clash là le clash de ci approfondir dans la réaction Mais le flow de Blemco on en parle Flow nice trop en plus dafa c'est juste pour nous montrer sa polyvalence j'ai beaucoup apprécié au fait ñu dem Mais est-ce que gars a ngi xaw ma kan moo ko jóobal bit bi mais bu nice bit bu impact en plus moom blème Pro dafa maîtriser bit bi nice sax on continue. alors dañu am répétition ci le mot rap la répétition consiste à répéter le même mot dans une phrase Té le mot rap répété plusieurs fois en plus il veut juste nous faire savoir que daj Lune lu ne ndax na gaaleem ndax rab fanaan na il a vécu beaucoup de choses ndax et loolu yëpp li waral mooy parce que rap bi muy def c'est sa passion et bépp risque wala bépp inconvénient bu mu laaj da ko koy jox ba mu mat sëkk parce que rap bi muy def moom le fii et que c'est sa passion da koy jox gëdd ba mu mat sëkk non mais fii dafa wax lu am solo et maintenant c'est juste une euh, c'est juste une source de motivation pour tout le monde nit ak ci lépp loo mënti nekk muy sa passion di nga dégg lu ne di nga gis lu ne lu ne dinañ ko teg sa der bi mais yow le plus important mooy nga focus ci sa carrière focus ci li nga xamante ne ni moom nga ne mooy sa passion fais tout pour atteindre tes objectifs dignement am ci lépp li nga bëgg yoonu tekki moo mel noonu dafa bari xaaxaam bari ay jam-jam mais bul mës a xàddi faut jamais baisser les bras focusal ci sa bopp liggéeyal pour am lépp liñ ci bëgg ëllëg doo ko réccu en plus il nous fait savoir que moom dara du ko jaral muy jaay ngoram ci game bi et bu waxee loolu je pense qu'il fait référence à certaines personnes yi nga xamante ni bëgg buzz wala bëgg siiw wala nekk dara ci game bi jaral na leen lu jaay seen ngor te pourtant àdduna dara jaru fi nga fay jaay sa ngor

affaire bi jël polémique gars ku nekk da ci joxe sa xalaat ñii naan dañ ko séddoo ñii naan dañoo joxe lii dañoo def lii un milliard yi xamuñu fu mu jaar polémique bi nag bari na ku nekk da ci joxe sa version. diw ko blem Pro ñëw ne un milliard yi dañ koo séddoo seen biir tabax ci kër te ñàkk underground bi la. donc foofu dañuy am clash envers euh, les dirigeants du FDCU muy le fonds de développement des cultures urbaines en plus dañuy am champ lexical ci campagne électorale Pastef parce qu'il a bien mentionné Sonko. Diomaye système ak bale si boo leen la période campagne électorale le président Bassirou Diomaye Faye a fait un balai qui ko et le campagne euh, side yépp donc faut dañuy un champ lexical campagne électorale Pastef mais aussi il nous fait savoir qu'il est temps qui à à faire game right exactly il a parfaitement raison sama gars jot nañu commencé ci game bi jot na wax <laughs> boole na ci bopam jot na gars commencé fayee ko ci game bi bien sûr pas du buzz kessé parce que buzz fayul courant buzz fayul ndox buzz jëndul ravitaillement comme ni ko Mr Cash waxee woon foog succès bu famé lu du sam way bu da nga am buzz nga am succès té amoo xaliss ça sert à rien du tout donc il a parfaitement raison wax na lu am solo il est temps gaay yi commencé fayeeku ci game bi wala boobu ay ca ñu dem. Imain may apa? laa ko fawee tax rap bi yomb ci man duma bindu lu banal kadi kali garab mën reading ton black lii saw alors fi dafa def référence ci ki nga xamanteni modi moo di Reddington Reddington benn fiction de personnage la bo xamanteni dafa apparaître ci ben série télévisée bu ñu wax Blacklist donc dafa def référence ci ki nga xamni modi Reddington en plus il nous fait savoir que moom du bindu lu banal manam du bindu lu bon mom à chaque fois que bind day bind lu carré lu code, automatiquement tout le monde va apprécier parce que carré am qualité on continue sama gars alors en 2006 carton rouge coupe du monde mu ngi nekkoon match euh, France contre Italie dafa jëloon ko li nga xamante ne carton rouge parce que dafa am benn joueur bo xamante ni nii moo Marco Materazzi Marco Materazzi am na lu mu waxoon ki nga xamante ni di Zidane du coup Zidane mbëkk ko après ñu jox Zidane carton rouge. donc dafa def référence ci Zidane jëlaale exemple bi ci carton rouge bi nga xamante ne Zidane jëloon na en 2006 ci coupe du monde bi mais sama gars yi fii dañu am clash clash la len wax envers wa kër me fa muy Fall Cap Las Melo Gën Mor bépp rappeur bo xamanteni ya nga ngi keur mbay Fall Blm Pro clash na la ne la fël mais yemu ci parce que dafa clashaale en même temps ki nga xamanteni modi moo parce que mu ngi nan ma tëj gàttu ba les waxul on sait bien que talbi bi moo fi génne won ben projet intitulé les waxul donc fi dañuy am clash envers wa keur mbay Fall amalé en même temps clash envers ki nga xamanteni modi ni ñu dem. kurux nga xamoo sa rab fils de pute nga yàgg nga maas ma rusif saaga naa seen nday foog bépp niw suul bi yeewoon fii sama projet du meilleur rap Galsen c'est le meilleur projet de tous les temps amaat nañ clash envers les rappeurs new school parce que nee na fëkk euh, bépp new school bu yeewoo fii donc képp kuy new school ici au Sénégal jàppal ni Blm Pro clash na la ne la fëkk en plus il nous fait savoir que mon projet n'est projet le de euh, du meilleur rap Sen, mais c'est le meilleur projet de tous les temps en tout cas projet bu nice le projet bu le projet ni de ko c'est un projet très cool alors gars li sound on a essayé de faire une réaction dedans la vidéo est intitulée Intro. Comme l'avons compris, ça fait partie de son projet EP intitulé Première Pierre, sorti récemment. sama gars je vous suggère de dem donner projet parce que projet bu nice Le projet la ni du début à la fin vous ni Pro magna en maturité en plus level bi ngi a Il a carré dafa Il artiste rappeur bien. Il est gëm y a est très bien. parce que participer ci ay compétition dafa nekk koo xam ne aussi dafa focus de trop ci carrière et c'est quelque chose à apprécier c'est quelque chose à souligner mais sama je vous suggère ngeen déglu le projet bi du début à la fin ngeen déglu cet titre parce que depuis que le projet est disponible dama gis ni ñu bari dañu concentré wu ci sound bi intro parce que xëy na clash bi moo mais je vous suggère s'il vous plaît ngeen dem déglu ci projet bi du début à la fin ngeen bàyyi seen xalaat ci commentaire la question est la suivante selon vous kan moo nar tontu euh, Blm Pro ci waa Kër Mbay Fall parce que clash na leen bien dina am ku tontu wala du am ku tontu ki nga xam ne moo di Blm Pro taal bi dina tontu Blm Pro wala du ko tontu foog bépp new school bu yeewoo fii ban new school selon vous moo war a mën a tontu ki nga xamante ne nii moo di Blm Pro. en tout cas depuis gis naa gis naa gars yi di polier ci internet bi di kaañoo parce que ku ci mel ni Jaas Kaana def na benn post ne pose première pierre bi moo baaxul. jaskana ak Belem Pro ku ne xam na ne ñoo demandoo woon euh, final fi nga xamante ni moo di hip hop feeling mais ils étaient des potes xaw ma nag léegi lan mooy problème bi ils étaient des potes parce que euh, ki nga xam ne moo di Belem Pro ba mu tëggee concert à Mbour jaskana il s'est déplacé ñëw assister ko en plus presté man j'y étais maa ko sur scène donc ils étaient des potes mais après clash jotoon na seen diggante selon vous mën nañ xaaraat clash entre Belem Pro ak jaskana ou pas à vos claviers bàyyi naa donc wax leen seen xalaat ci commentaire li mo moo sound bi je vous suggère aussi ngeen dem déglu ci projet bi n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker gros bisous à vous love you all à la prochaine ciao